dil bi ñu doon ruuma daal ci diggante président Macky Sall ak Idrissa Seck moom Macky Sall dëggal na ko. moom président Macky Sall keroog yéey yaay ba mu ne dafay nag féete li nga xam ne mooy anniversaire am daal di koy sax maquillé ne rek dañoo daal di nakk ñëw ngir joxe benn prix moom mi nag def loo xamante sax dafa daal di woroo ak li mu daal di nakk diggee woon ak askan bi woo fa nag Pape Diouf mu ñëw wayal ko lu rëy nee na nag féetewul anniversaire am prix lañ doon joxe rek ñu bëggoon na daal di illustrer rek daal di fay teg tuuti lu xum mu def tuuti ambiance. ñu diggoon un Sénégal émergent gàcce nga laama. moom président Macky Sall moo xam ne lu ñu mel ca foofu la daal di xam ne ne am ap leader go xamanteni gu melni Idrissa Seck deuxième euh, ci présidentiel bu atum 2019 ak lamu am ci électorat nga am ko ci sawet lolé lu reuy la te itam ñëpp ken bañu ko na moom président Macky Sall di xamné ni dafa melni jackpot la daal di teggi lu ñu mel ken bañu ko opposition bi ko ci laajoon ubbi sa xol bi tay ji lu nga ciy fekk mom moy idi ku ko am ci allié lolé dir bu baax la te itam daf koy sax mom assumer xamné ni carrément dil la def ta nangu na Nous avons monsieur Idrissa Seck qui était mon adversaire un sérieux adversaire. Eh bien, il a fallu du courage pour que nous nous parlions. On dit deal, quel deal Deal sur quoi D'ailleurs, le deal, c'est un mot impropre que les francophones utilisent. En anglais, un deal, c'est très positif. Parce que c'est un accord. Deal veut dire accord. Mais il dit donc, gars, deal, deal. Là, deal. bon deal dañuy wéyandeeg président Macky Sall ak farandoom yi nga xamante di say su ne ci defi gaaf ak diko wax rek lañu daldi daal ak askan wi dañ koy daldi nak tambalé ci ki nga xamante ni moom mooy Mansour Faye Mansour Faye mi nga xamné journaliste bi di Adama Bagay dafa dem ba tuddee ko ministre du tout ca lañu ñu ki nga xamante ni mooy Karim Wade ci jamonoy président Abdoulaye Wade xam ne rek mom moy ministre du ciel de la terre et des mers mom mi nga xamné mom moy Mansour Faye waxati na ci assemblée nationale bañ koy nattal budget amul lu muy wax ci TER bi nga xam ne dafa taw a daw ndax ay date yoo xam ne dañ koy avancer saay su ne nit yi du ñu gis TER bu daw lu dul gaare ko fële ca Colobane mu poussière poussière ba doo gis ay bëtam Mansour Faye ne prix péage bi nga xam ne saay su ne nit ñi ñu ngi koy ŋàññ jarut a ŋàññ ku amul loo jëlee péage ngelawaay nga jaar ci suuf ñaari option lañ la daal di jox moom Mansour Faye moo xam ne lu ñu mel. l'autoroute euh, Dakar Diamniadio yee sous concession ñu ngi wax léegi euh, par rapport ak coût yi autoroute moo demee noonu xam nga national amna autoroute amna bu fekkee autoroute bi cher na nga jël national mais je pense que lolu option la alors mais euh, coût autoroute investissement la un investissement il faut que moi, am koy rembourser bu amee rembourser. usagers aussi il faut ñu mën rembourser. mais on peut pas faire des autoroutes à des coûts yoo nga on peut pas peut-être voilà récupérer le financement sur un temps bien défini. mu mel na ku bëggoon tëj week-end bi mu nekk ab week-end bu neex ci waa APR moom mi nga xam ne moom ministre Oumar Gueye ah, mi nga xamante ni moom la ñu lu jëm ci wàllum collectivité territoriale waaye nag dénk ko itam li nga xamante ni mooy wàllum gouvernement bi démb waxati na wax ju rëy te loolee nag nee nañu muus bu ndaw bi lu mu wax ca muus bu mag bi la ko daal di déggee dafa mel ni nag lu nuy ruumandaat ca kaw la la dégg moom la daal di baaxee foofee ca dimanche foofee ah, ca ITV ak Mamadou Ibra Kane moom Omar Gueye nee bo maytu ci local yi ñuy ñëw muy élection yi ñuy tànnee maire yi dañuy daal euh, supprimer ville yi nekkee fii ci diwaanu Dakar lu ci melni ville de Dakar Pikine ak Guédiawaye Dakar nekkoon capitale bu AOF dafa melni nak nag amatul njariñ ci li nga xamné moy carte électorale bi Omar Gueye lolé le bëgg wax. sur Dakar il y a 19 communes mais sur Dakar il y a aussi une ville une ville qui est en même temps département qui est en même temps commune une commune qui est dans, qui, est, dans son périmètre, c'est d'autres communes. C'est une situation hybride. Oui, qu'est-ce qui va se passer concrètement ben, Logiquement, si on s'en tient au Code général des collectivités territoriales, il y, aura un département à Dakar, collectivité territoriale, et les 19 et communes. Les communes. La ville les communes. va disparaître la ville, comme collectivité Normalement, la ville n'a pas sa raison d'être. Autrement dit, on ne parlera plus de maire de la ville de Dakar. du président du conseil départemental de Dakar. ñu ko jàngatee nu koy gisee rek mooy ne dafa mel ni di daal calcul ak bon plan la boo xamante ni nag président Macky Sall ak waayam dañ ko daal di teg ngir daal di supprimer yenn yoo xamante ni ñoom saay su ne dañ koy daal di daj ci suñuy élection locale mooy ville yi ci gën a ngand fii ci diwaanu ndakaaru lu ci mel ni ville de Dakar ak yeneen ak lu ci mel ni Thiès ak feneen ak feneen ngir ñu gañe ko ñoom jafe-jafe bu mag a mag la rawatina nag Dakar gi nga xam ne dafa mel dafa am borom ndax Khalifa Sall mooy borom Dakar bañ ko bëggee daal di gañe nañu daal di koy taqal loo xamante ni ca la ñuy wax mooy ne amul moom mi lépp ngir baar koy bëgg nag écarté ci li nga xamante ni moom mooy euh, carte élection locale yi fii ci diwaanu Ndakaaru waaye nag statut spécial bi nga xamante ni moom la ñu bëgg a jox mairie bu Dakar dafa mel ni nag te loolee àndul ndax opposition bi ba dañ ko daal di bañ fu mu toll nii seeni calcul la teg ak pexe ngir daal mën ko raayee nag ci liste bi bu baax a baax a baax muy supprimer ay villes kon nag mairie yi nag yi nga xamante ni moo ëpp doole fi ci diwaanu Dakar sax nga xamante ni ñu ci mel ni ki nga xam ne moom mooy Amadou Ba Moustapha Cissé Lo ñoom ñoo nekkoon borom Dakar yi te ñoom ñoo fu mu toll nii déggootuñu ak présent Macky kon ay calcul la yoo xamante ne mën nañu jox tane ci suñuy jàngat ne moom président Macky Sall ak waayam dañ ko bëgg a teg ci local yi nga xamante ni moom mooy daal di ñëw mbokk yi fi la ñuy yemandeeg yéen ci xibaaru bés bi di leen jox dig daje yeneen i jour ak yeneen actualité ah, yu soxal réewum Sénégal wante nag ah, bu leen fàtte mukk abonné ci suñuy page ngir soutenir ñu ci Instagram Twitter Facebook ak itamit sa YouTube li ngeen di tapé moom mooy ah, Totem Actu waaye bu leen fàtte suñu site bi www.totemactu.com